bu fekkente ni nag moom ci wàllu boppam dafa xamul boppam ma di ko xamal ni ko kër gi dafa am lu fi nekk lu nga xam ni boo ci dee jëfandikoo loo xam ni teguloo ko ci ndigal dinga xëy bi seen boroom wan la euh, fi nga war a yem te loolu bu ko weddee mën naa koo siteel ay mag ñu nga xam ni nit ñi foog nañu ay référence lañu woon waaye dañoo mujj alku seigne Pape malik mi mu démentir nak dama bëgg ñépp xam ne bi ko sunu mam cheikhul khalifa abou bakrin fi radiyallahu anhu de defal fathu boba amul fukki at kon nak so démé ba bëgg weddi maftuhun alayhi war nga nek nit ko xamni ni sa cër egg na ci bu fekke seigne cheikh la nag